alhamdulilah wasalaatu wasalaamu waaw mbokk yi kon ñu ñëwaat ak yéen tey ci axiru xabar mooy mujj xibaar yi xew tey ñu ngi njëkk a dugg nag ci euh, euh, al jazira al na ci bisu ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak bis ci attaque bi nga xam ne Israël attaque na ko Gaza armée israélien bi mi ngi tàmbali di reconnaître ci premier yoon bu ko nangoo donte yàgg nañ koo wax mu di ko miim nangu na seen bagaasi xeexukaay yi ñi ngi wàññeeku li awali maratin munsubat il adwan bi naqsin fi dababat bi sababi kasrati istihdafi a min qibalil muqawama israil nee na seen xeexukaay boobu ñu wax ñayu xare ñi di ko wax combat mi ngi tàmbalee manki ndax lan ndax waa Hizbut-Din al-Qassam dañ leen di dóor ay jum te buñ ci dóor ab jum rek da ngay tàkk nee na yëmu ci itam char de combat yooyu ñiy jàngale dawal dawal mi ñi nga xam ne ñooy jàngale ni ñu koy dawale ñoom itam dañoo manqué léegi lan moo tax ñu manqué li tax ñu manqué bi sababi maqtali im aw isaabati im ci ñoom ñii dee nañu lépp ci ñoom dañ leen a jam ñu nekk hôpital moo tax sàdd combat yi ñi ngi jeex waaye sëfëri ko doon ñi ngi manqué la ca topp mooy xasfun saaruqiyun kasif min lubnaan ala shimal li israil liban def na sànnim jum moo xam ne mi ngi koy def ci fi wax bët gànnaaru Israël muy chimaalu Israël nee na vingt heures quarante neuf ci waxtu Greenwich la loolu xew benn journal bu ñuy wax ba yadi yaud ahronot yadi yaud ahronot journalu israélien la nee na suñu dëkk boobu ñu wax Kiryat Shmona ak li ko wër ci shimalu Israël dóor nañ fa ay missile yu tar yu bari yoo xam ne missile yi ñi ngi jógee Liban ba léegi jazira nee na safaratul insaar tudawi fi mustawtanati isba al jalil ba léegi journal bi ñuy wax al jazira nee na alarme yooyu nga xam ne moom lañuy taal bu fekkee ne ay bomb dikk na ci dëkk bi mbaa ñu ngi dikk ci dëkk bi taal nañ ko ci Jalil ci biir Israël kafa nekkal Al Jazeera nag moo wax ne fi ñuy wax Kiryat Shmona ak fi ñuy wax Mar Marxalyot ak yeneen mustawtanaat yu bari ñaari yoon a ngi nii ñu dégg seen safaraatul insaani di jooy mooy seen alarme di yuuxu waaye bi ñu seetee dañ ne ay missiles yu jege Liban ñoo fa dal kon tey moom Liban noppalul Israël ci ay bomb loolu mooy li nga xam ne jege na ci journal Al Jazeera ba léegi ñu wéy ci diggante Hamas ak Israël bi yoon nag ñoo ngi dem ci journal bu ñuy wax Al Arabiya Al Arabiya nee na أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى ب... التقى مسؤولين إسرائيليين الاثنين وبعثوا أحدث تطورات بشأن مفاوضات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة al arabiya nee na ministère bitim réewu Amérique wax na ne Anthony Blinken mi ko jiite daje na ak ay kilifa yoo xam ne ñaar lañu ñu bokk ci banu Israël ci altene ji gëstu nañu itam nag li gën a yees li yees ci dox gi ñuy dox jëm ci mën a waxtaan waxtaan woo xam ne mën nañ caa jaar ba ñu taxawal sànni gi ñuy sànni jum yi ak taal ci Gaza ba léegi am na ci ñi nga xam ne ñoo yore kàddu ministère bitim réewu Amérique koo xam ne wax na waa ji mi ngi tudd Matthew Miller moom moo wax ne Anthony Blinken daje na ak ñaari kilifa yu bokk ci banu Israël yu siiw ci bisu altine ji ñu waxtaan ci waxtaan yoo xam ne waxtaan yu jaar ci wàllu fan lañuy jaar ba juboo ci ñu mën a taxawal guerre bi nga xam ne moo dox ci diggante Israël ak xarakatu Hamas ci Gaza ba léegi ministère bitim réewu Amérique li na ne moom jortu na ne dina jàppandi ñu mën a lijjanti lëj-lëj nga xam ne moo des ci diggante Israël ak Hamas bañ mën a déggoo ci mën a arrêté seen soqi mbal mi ñuy def ci seen diggante waaye nag ki ñuy wax mustacharul amr amn al qawmi al israili ñu gën koo xam ci tasaa i xan jabi te muy wasir euh, moom ak wasiru shu'unil istratijiyatil israili ron dermer ñu wax ne am nañ daje moo xam ne bañ ko dajee dañoo leeral wax ne Israël day musta jóg ci juboo ci ne mën nañu waxtaan ba téye gànnaay yi taxawal guerre bi waaye nag ñu ngi koy taxawal ci charte yi nga xam ne Joe Biden président wu Amérique tëraloon na ko ci le 31 mai bu fekkente ni Hamas nangu na charte yooyee mën nañoo taxawal guerre bi ba léegi Al Arabiya dem ci mihwaru Philadelphia Philadelphie nag mooy gox bi féete ak Saara Usina ak Maabar Rafa nee na journaliste yi nga xam ne ñooy yore wàllu feeñal xibaar ci Israël ñoom wax nañ ne premier ministre boobu ñu wax Benjamin Netanyahu moom mi ngi dee keeteet ci wax ne Philadelphie moom armée boobu du fa jóge mukk ndax Philadelphie moo di digg bi dox diggante Égypte ak Gaza ba léegi yemu ci waaye moom Benyamin Netanyahu nee na day lank ba géej yarfadu awdati sukaan ila shimali Gaza ñi mu dàqe woon ci bët gannaaru gasa teñ dëkkoon fa nee na ñooñu moom doot ñu fa del seeti daa kóorul ci ñu del seeti fa kon ñooñu fu ñuy dem xanaa duñ dugg Égypte de ba léegi mu daal di wéy daal di wax ne annal jaysa yaamalu ala tawassuin mi wari philadelphie limanitari bil asliya nee na li tax armée Israël di gën a yaatal ak langam ak waaram ci biir Philadelphie dafa bañ gaay di fa jaare ay gannaay di ko dugal Gaza ba tey nee na ñoom jotal nañu ki nga xam ne moo di Benjamin Netanyahu ne ko bi anna hamas lan tuwaafiqa ala udnatin illa bil insiab min philadelphia ñi nekkoon ci wàllu waxtaan ngir jubóo te bokk ci giiru banu israil wax nañu benyamin netanyahu ne ko hamas day fi jàpp mooy du waxtaan ngir jubóo mukk lu dul ni dañoo génn philadelphia te moo di diggu Égypte ak gaza ba léegi mu ne yushaaru ila annahu bi waxtin saabiqin shaddada dimitri gondalman mustashaaru maktabi netanyahu alatisaamit al abib asarim bil ittifaqi bi saani xasa ala maanaam bi saani bil ittifaqi bi saani xasa alladi yadamuhu bayden nee na ku ñuy wax Dimitri Gundelman muy ki nga xam ne moom mooy ka bureau bu Benyamin Netanyahu di diisool ci ay xalaat nee na Tel de moom mi ngi taxaw taxaw gu dëgër ci juboo ci wàllu Gaza waaye nag bu ñuy taxawal guerre bi di juboo seen diggante ak Gaza itam dañ ko tëralee ni nga xam ne noonu la ko Joe den tërale woon bu ngeen fàttewul waxoon nañu Joe Biden nan la waxee ne loolu mooy xalaatam pour ñu mën a juboo te tasaare Hamas ca la bokk ak yeneen ba léegi mu ne arakatu Hamas xaawalat ijraa isnaini wa ashriin taxyiran ala sabqati Gaza muakkidan ana netanyahu rafada taadilat waqfan li wakaalati taas ba léegi kooku ñu wax Dimitri Gundelman nee na ñi di arakatu Hamas ñaar fukki tomb ak juróom-ñeent jiim nañ koo soppi ci li Joe Biden waxoon ne noonu lañu war a jubóoyi ci seen diggante waaye nag Dimitri Gundelman moom nee na Netanyahu nag foofa la ngoy loolee Biden waxoon ne suñ ci mënee juboo wiir gànnaay mën naa am fekk Hamas nanguwu ko wiir du mën a am ba léegi mu daal di wax ne amal xutwatul taaliya fi l mufawadati faraa gandalmaan أنه يجب أن تتخذها حركة أماس عندما تقبل جميع شروط الصفقة التي تجري مناقشتها قائلا الخطوة التالية يجب أن تتخذها حماس وعليها قبول شروط الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة Dimitri Gendelman nee na jéegub ñaareel bi moom ci waxtaan ngir juboo avance moo ko war a dox ko jëm si ci nun waaye ñun yëkkati nañ benn jéego teg jëme ci juboo te mooy loolu nga xam ne président Biden bind na ko ne fii ci Hamas juboo danañ mën a taxawal guerre bi nee na ginnaaw boo xamee ne Hamas nangu na mboolem loolu bu Joe Biden tëraloon ba noppi ne bu juboo amee ci loolu lay jaar su boobaa nag Amaas war a yëkkati beneen jéego dox jege sinu pour ñu mën a juboo ak moom. mu ne wayes amu Israil aw watas amu Israil bi asabi Dimitri Gentleman anna shuruta atataddamanu haqqaha fi muwasalatil harb أتى تحقيق جميع الأهداف ومن تاري بالأسئلة من سبي جزيرة سيناء وإعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة ومنع عودة الأسرى من مقاتلي حماس إلى شمال قطاع غزة وفق قوله ba léegi di ki ñuy wax Dimitri Gendelman nee na bokk na ci sart yi nga xam ne Israël wax na ko nee na bu ma dee arrêté guerre bi itam da ngeen may may sañ-sañaf saa yu ma neexee songaat xeex bi talaat ko loolu da ngeen koy nangu ñaareel ba mbokk na ci àqu Israël mu continuer guerre bi ba ba am li mu bëgg te bokk na ci li bëgg tas mbooloo moom mu ñuy wax Hamas mbokk na ci li bëgg ndox diggante Égypte ak Gaza ba gànnaay dootu fa dugg bokk na ci lim bëgg ñi dund te ñu jàpp leen jaam te waa Gaza yore leen ñi waa Hamas ñu dellu jiwaat Israël bokk na itam ci lim bëgg képp koo xam ne jàppoon na la ci guerre bi yóbbu la Israël bu la bàyyee itam doo dellu Gaza doo dellu Gaza déedéet. ànd ak loolu lépp nag mu faawadaat bi ñuy def ca xatar moom ma ngay nga xam ne xatar ak mistira ñoo koy def ngir mën a arrêter guerre bi ci gaza waaye ànd ak loolu lépp nag ña ngay waxtaan ngir geer bi jeex waaye israël moom ma nga continuer ca guerre ba di guerre ba bis ni ki tey altene ma ngay bombarde ma ngay geer ba léegi rajo bi nga xam ne mooy tasaare xibaar Israël nee na am na kenn koo xam ne jot na xibaar yu jóge ca foofa di xatar ca juboo ga ñuy jéem a jubale Israël ak Hamas ci dimanche yi passé wax ne ki nga xam ne moo jiite agent secret Israël yëpp ñu di ko wax dawit barnia mu wax ne moom dina dem xatar bokk ca waxtaan wooba ci ayu bis gii di ñëw ànd ak nag li Israël di bombardé Gaza yëpp moom dina dem ca waxtaan wa ngir lan ngir jiim nu mu def ba juboo dox ci diggante Hamas ak Israël loolu moo di xibaar yi nga xam ne génne na ci rajo boobu ñuy wax al arabiya léegi ñu dem seeti BBC nee na BBC nee na aljaysul israili yansa'ibu min ahya'in fi wasati fi wasati qita'i gaza wa na'u samanina qatilan falistiniyan xilala arba wasrina saa almadiya nee na moom BBC arab yi dafa wax ne armée Israël dañu ngi génn Gaza centralu Gaza daal ñu ngi koy génn ànd ak loolu lépp nag bombardement yi ñu def ci Gaza rey na juróom-ñett fukki nit yi bokk ci Palestine ci diggante vingt quatre heures yi passé diggante vingt quatre heures yi passé Israël bombardé na ci Gaza rey juróom-ñett fukki nit ànd ak loolu lépp nag ñu ngi arrière di génn Gaza ba léegi ku fekkee te gis nee na armée israélien bi dey ñi ngi dëpp dëpp gu mat sëkk ci fajar yi subaak altine tey ji jële nañ ci jóge fu ñuy wax tàllul hawa jël jóge ci quartier bu ñuy wax Cheikh Ajalin jóge nañ ci fu ñuy wax saariu sinaa alwaaqi junoo ba xurbu madinati Gaza waaye nag lakin a baxiyat bil xurbu min dawaar Nablusi wa fi muhitim imari nat charim wa dalika baada sita ayaam min tawaqul nee na yi mu njëkk a wax ci la Israël arrière waaye nag mi ngi des ci Pierrot Annabulis yi mi ngi des des itam ci mi war naat charim ci juróom-ñaari fan yi nga xam ne attaqué woon na ko di guerre diggante moom ak Gaza léegi nag ñi nga xam ne ñooy yore kaaraange nit ñi muy difaaul nii nee nañu tey jii de génne nañu ci quartier bu ñuy wax tàllul xawaa fukki nit yoo xam ne dañoo bombardé woon seen kër kër ga màbb ci seen kaw nee na itam liñ jote génne ci ñoo xam ne dañoo bombardé seen i kër ñu màbb ci seen kaw ci fan yi paase dem na ci juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne bombardement israélien yi rey nañu leen ci Gaza ànd ak loolu yëpp nag kërewul Israël mi ngi continuer ci xitaayu Gaza ay roplaana ma ngi bombardé ay kanu ma ngi bombardé ndax guddi gi passé rek muy guddi altene gi bët seen altene rey na juróomi nit yoo xam ne ñetti gone nga ca ma nag li ñu blessé moom yàlla xam ne mu tollu waaye ñoom xamuñu ko ba léegi <clears throat> am na ku fekki ko wax ne roplaanu guerre israélien yi bombardé nañ mbooloo moo xam ne dañoo taxawoon ci kanam benn étage bu ñuy wax burju suusi ci talil hawa mbooloo moomee nag ay civil lañu woon waaye bombardement boobee yóbbu nañu rey ci ñoom ñu bari blessé tamit ñu bari nee na itam am na ay nit ñoo xam ne Gaza lañ dëkk doon ay civil ñu bombardé leen ci penkub Rafa ci junubu Xataa bare leen ba léegi ñi nga xam ne ñoo di croix rouge ak li ñuy wax ilalul ahmar nee nañu eggale nañu seet bi nga xam ne moom lañ doon seet nit ñi nga xam ne dañu bomba bombardé dañu suulu ci xeex bi nga xam ne Israël koy xeex ak ñoom ci fi ñuy wax mantixatul mawaasi nee na liñ jot a génne daal ci ñoo xam ne ñii dañ leen a jam ñu dee ak ñuñ blessé nekk nañu ñeenti téeméer boo boolee ñi dee ak ñi blessé nee na itam bombardement boobu Israël doon def démb yàq na ci junni ak ñaar téeméeri kër yoo xam ne ay xayma yuñ sampaloon ñooñu la yàq na ci itam barab yi nga xam ne fa lañ doon séddale ñam ya ak ndimbal ya yàq na ci itam barab yi nga xam ne fa ñu doon denc ndox denc ndox yi nit di naan waaye nag bu sanatu si a ci gasa moom nee na ci altine ji inna aksar min samani wa salasina alaaf wa sittumia wa arba usiba تسعة وثمانين آلاف وستة وتسعين nee na diirub attaque bi am ci octobre ak léegi Israël rey na lu tolloo ak fanweeri junni ak juróom-ñett ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak ci ay blessé na juróom-ñett ak juróom-ñeent ak juróom-ñeent ci ay nit loolu moom la jotagu na sàkkal pexe fanweeri junni ak juróom-ñett ak juróom ak juróom-benn fukk ak ñeent rey na leen juróom-ñeent fukki junni ak juróom ak juróom-ñett ak juróom-ñeent leen ci at bi attaque bi amee ci octobre ak léegi nee na itam roppalaan Israël yi ci altine ji dañoo bombardé benn école boo xam ne école booba mi ngi topp mbooloo mu ñox wakkalatu xaws wa tashqiidi laaji inal filistiniyina wa tawi alaaf annaasiina fii muqayyami nusayraat wa satar qissa nee na bombardement bi gaa yi defoon altene benn école boo xam ne ay organisation non gouvernementale ñoo defoon ci Gaza fatoon fa ay nit yu bari mu di ay junni yu jeex waaye Israël tiim leen bombardé leen bam leen bombarde rey na vingt deux personnes waaye blessé na cent deux personnes ba léegi ñi nga xam ne ñoo rek xibaar ci Palestine nee nañ bombardement boobu kat juróom-ñetti fukki palestiniens ñoo ci dee waaye ñaar téeméer ak fukk ak juróom ñoo ci blessé te loolu mi ngi am ci vingt quatre heures yi ñu passé foofu la ñuy yem tey bu subaa ñu jàllaat ba léegi ci Gaza ak xew-xew bu dox digganteem ak Israël xëy na nag bu ñu defee ñaari fan ñetti fan ci Gaza danañ dem rek ci Ukraine ak Union ñu yaatal ci.